père maa ngi lay ziar. Babacar maa ngi lay am jàmm. waaw bu baax maa ngi bi ubbi na troisième journée tey loo gis en tant que magum làmb. li ma gis mooy euh, làmb ji ubbi na xale yi bëggante nañu. mais li ma gis su continuer dina ma toj làmb. loo gis. dëkkante bi ma gis. mbër muy dëkki ànd ak juróomi nit. ka ngay dëkki ànd ak juróomi nit ñu daje xeex loolu mën naa bataille rangée lay doon ñu ngi koy seetaan nag mën naa toj làmb na seen see jël seen i matukaay promoteur nañu wut service d'ordre bu doy parce que lii ma su continuer dana ñëw fii làmb du yegg histoire dina fi am. am na solo père waaye père wax ji mooy fan yii paas dañoo dégg père Max Mbargane ñu ne mu ngi dox am na ku koy doxloo Balla Gaye ak Boy Niang loolu loo a ci mën a leeral mooy. man sama wax toujours day leer. doon nañ dox am na ñu ne doxuñu. man duma waxantu. mais li wér mooy. ñu ngi leen ñaanal ñoom ñaar ñu am combat. ndax bëgguma benn mbër def année blanche. man seeti naa kër Boy Niang. promoteur bi nee na moom dana yebale kër Balla Gaye kon ñu ko doon démarché. du man nag man maa dem dem kër Balla Gaye mais nee nañ doxuñu ko dama leen di ñaanal ak ñoom ñaar ñu bañ a def année blanche ndax su ma soñoon moom mbër yëpp bëri loolu daal mooy li ma li ma ci mën a wax. nga yor fu ne fan yi nit ñu bëri ne champion la war a doon donte bëri na mbër yooyu Mama Lamine noo gis a taxawaayam ci làmb ak tel. waaw xam naa ne moom bëgg na mbër gi combat bu am da ciy daj coono yu métti te su bés ba jotee day ñëw lucide maanaam am na esprit champion. dañuy ñaan rek wërsëgam ne ci làmb ba mën a yeggali mbër na bul naagu mën naa laa limal ñu bëri ñoo xam ne bi ñuy débuté début bii lañ amoon te làmb daa mujj yàqu mbër du naagu fonkal sa bopp euh, di teel a tëdd te ba bàyyi fi fan si club yi. di nga dem ak Double Moteur loo ci wax. non combat la comme yeneen combat yi rek. non c'est combat la yeneen combat yi. moom Modou bu yow. yooyu yëpp jaadu na. ba may bu Mor Fadam. ba tey combat la. mais problème bi mooy promoteur bi mooy dugg ndax mooy payeur bi mooy seet lim gën a bëgg mais daal xam naa ne kun ko booleeg tamu jaadu ñun pare nañ pour jël. kontaan ci yow. jërëjëf